chers internet yu enquête 221 dal leen a fës yi fi jaar ndax inondation bu taqarnaase boo xamante ni jamono ji mu nga ca Tuuba yéeni kaay bi na ci ay bërëb yoo xamante ni fi mu toll nii ca Tuuba nit mënu faa jaarati ndox mu bari mu nekk ca mbedd ma lii tax na nag waa ONAS jël seeni responsabilité yokk nag seeni matuwaay ngir mën a évacuer ndox ma waaye nag ay sabotage lañ ci mujjee gis ndax seen ci yi ñu doon utiliser pour transférer ndox mi dañoo xëy rek gis tuyaux yu ñu leen di dagg benn par benn lii jaaxal leen lool ci jamono ji nga xamante ni nii laa la wax biir Touba am na ci zone yoo xam ne nit mënu faa dem ndax inondation bu bari te li des ci màggal gii weesuwul fukki fan fi mu toll nii nag ci jaaxle jaaxle dëgg la ñu nekk ndax tuyaux yi ñuy branché laa la wax pour transférer ndox mi saa yi ñu gis ci ay sabotage ñi leen di dagg di yàq liggéeyu ONAS ñoom waa ONAS nag fi mu toll nii ci jaaxle dëgg la ñu nekk ci du quotidien ci jamono jooju de Ndakaaru Njaay ñoom ñoo ngi yi nga xamante ni Sénégal nag jamono ji mu ngi accéléré mbir ya fas yéene lu tolloog téeméeri bus ak ñaar fukk ndax lu mu néew néew dina jël lu tolloog téeméeri juróom fukki ndaw jéggi sax dem ba 1000 emploi yoo xamante ni mën na koo créer jëndikaay bi def taxaw seetlu ci BRT bi nga xamante ni mën na indi solution laa wax ci banlieue bi ne en tout bi ci nekk rek mën naa jël téeméeri juróom fukki voyageurs te ci bés bi rek mën naa jël lu tolloog te ci bés bi rek mën naa jël lu tolloog 300 000 passagers lii di firndeel ne BRT bii nag mën naa indi solution yu bëri bëri ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la banlieue bi am ci wàllum transport source a moom def taxaw seetlu suuf gi nga xamante ñoo koy tudd ba léegi si ci diwaanu fa nekkoon di Mor Sarr ba attaque yi ñu koy def fi mu toll nii dafa bëgg mu arrêté ndax population si ñu ngi am naqar ci moom jàpp ne luy njiig di njàkk ci seen affaire suuf yii moom mooy njaar fan yi passé nag moom ancien maire bii di Mor Sarr ba ay xale dañoo ñëwoon attaqué këram sànni fa ay xeer ba daal di gaañ sax benn ci doomam ba mu porté plainte nag juróom ci ay xale jàpp nañu leen bokk na ci benn enseignant ak benn mbër Mor Sarr ba nag li mu xam la ci biir yéenekaay bi moo di gis nga ñii nekk di attaqué sama kër gi saa su nekk ay politiciens lañ parce que ñoom ñoo doon saboté sax tirage nawetaan yi dañ leen a yónni waaye nag man am naa sama fulla sama fayda ku fi attaqué te sama kër ma jël la yóbbu la ci yoon yéenekaay bi des tamit ci kaaw Jamil Saani mii nga xamante ni fi mu toll mu nga ca section de recherche moom maire bu Parcelles Assainies bi gannaaw ba ñu ko a auditionné ba ñu noppee lañ ko transféré yóbbu ko ci maison d'arrêt et JPS bu Grand Dakar moom it tamit fi mu toll nii mu ngi ca loxo gendarme ya ñu koy toppee atteinte à la sûreté de l'État ak lëkkaloo gu mu am ak ay terroriste moom ak ñaar fukki ndaw ak ñeent jamono ji ñoo ca biir kaso ba direct news moom ñëw ci ëtt politique gi ak kaaw Mame Boye Diao bii ci Benno Bokk Yaakaar yéenekaay bi waxtaan ak moom ci candidature am moom Mame Boye Diao wax ci Ousmane Sonko ak situation bi nekk ca Niger yéenekaay bi dañu xamal ne en tout cas ci biir waxtaan bi la ngay sentir mooy Mame Boye Diao mii kenn mënu ko tere nekk candidat ci élection présidentielle yi di ñëw ndax li mu xamle ci biir yéenekaay bi moom Mame Boye Diao xamante ni moom la président Macky Sall initié woon pour ñun candidat yépp ñu mën kenn ku ko signé maanaam dañoo mujjee du mooy choix boobu président Macky Sall defoon moom Mame Boye wu ko yemul loolu moom Mame Boye Diao ndaxte mu ngi xam la ci biir yéenekaay bi ne moo xam Boun Abdallah Dionne moo xam Mame Diop moo xam Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo Ba ba ci Abdoulaye Diouf Sarr képp ku ci président Macky Sall tànnoon tey jii ah non dinaa réfléchir balaa may ànd ak yow amul kenn koo xamante ni ci ñoom bu ñu ko tànnoon automatiquement damay ñëw nekk sa ginnaaw du toog réfléchir réfléchir la ba noppi soog a xam ndax damay ànd ak yow waaw wala déet yemul ci loolu moom Mame Boye Diao ndaxte mu ngi xam la ci biir yéenekaay bi ne coow li nekk ci ah ko li ni mel te moom dinaa arrêté nag sama grève de la faim bii ma na xeex ni moo xeex ca biir kaso ba waaye lekk moom fi mu toll nii farata la ci moom Mame Boye Diao yemul ci loolu ndaxte waxaat na ci candidat yi nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar xamal président Macky Sall na ko nag gis nga man mii su ma demoon bay renoncer wu laa la wax ci sama candidature su boobaa damay démissionné ci bépp poste de responsabilité boo ma jox ci biir état bi ba noppi nag delluwaat ci impôt et domaine ba ma nekkoon lii kese rek dong moo mën a tax ma daal di renoncé wu ci sama candidature di am nag ci xëcco xiiroo ŋaayoo gi nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar ci candidature yi Mame Boye Diao nee na c'est très normal choc des ambitions la ça rien à ak délit ndax ku nekk nag war nga mën a bëgg nag jiite réew mi léefu yéene kaay ne a jiite réew mi te ko jamono ji ci kaso bi moo di président Ousmane Sonko pétition bi nga xamante ne nii nekk ci Afrique signé woon nañ ko lim gi intellectuelle état bu Sénégal gi na mujjee nañoo tontu boroom xam-xam yooyu te ci njëkk wax nag moo di Abdou Karim delloo waat na nag intellectuel yii seeni place ne man ba ma gisee boroomi xam-xam yoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllum droit di wax ci coowal Ousmane Sonko bii bay signé pétition pour ñu génnee ko dama tiit xam ne ndekete yoo am na ñoo xam ne xamuñu seen bopp moom Abdou Karim Fofana di laajte intellectuel yii fan la ñu nekkoon bay Ousmane Sonko di attaqué président Macky Sall la président Macky Sall tamit yokk ci xar mi karaw ne Felwine Sarr mi jiite nag signature cent yii moom ci boppam moo ñu yàq waaye nag li muy wane lenn kese la moo di fi mu toll ni parti ba ñu doon wax mooy Pastef reconnaître nañ nag jamono ji seen défaite gannaaw ba ñuy utiliser ay cocktail molotov nag ne dañuy xeex ak état bu Sénégal fi mu toll nii ne benn pexe dong la ñu desee ñoom ex Pastef mooy ut ay nervi intellectuel weesuwul nag cent quarante intellectuels yii yor bi ne ki ñu may ji ci biir réew mi mu di Serigne Mountakha bu Yewwi waxtaan wa nag bokk na ci grève de la faim wu président Ousmane Sonko bii naka la ñuy mu daal dakk ci na mu gën a gaawee bi di xamal ne Serigne Mountakha de la mu ñaan délégation bi mooy ñu jébbal Ousmane Sonko message am te moo di moo arrêté grève de la faim bi te pour wane rek ne moom Serigne Mountakha moo ko sàkku jox na leen nag ay tàndarma bëgg a président Ousmane Sonko mii ne ko même boo nekkoon laa la wax ci koor jàppal na heure dog jot na tàndarma jëmm am na loo xamante ni kenn mënu koo tas ci ay kayit yéenekaay bi desewaat tamit ci waxtaan wi Serigne Mountakha amoon ak délégation bu Yewwi kan bi moom sang bi di xamle ci biir yéenekaay maa ngi def lu mu mën pour président Ousmane Sonko mii mën a génn la dara waaye sama doom la doom laa ko jàppee moo tax ma ñaan ko mu daal di arrêté grève de la faim bi yéenekaay bi def ci révélation bu rëy tañu xamal ne Serigne Mountakha nee na na famille ñi gën a jege nag président Ousmane Sonko te li tamit la leen ñaan Ousmane Sonko arrêté grève de la faim bi dem na sax moom Serigne Mountakha ba ni xamal na woo président Macky waxtaan moom ci coowal Ousmane Sonko Sonko moo tax yéenekaay bi dañu xamal ne sëriñ bi de lu mu mën moo ngi koy def ci coowal Ousmane Sonko bi la tribune yéenekaay ne en tout cas de li bëgg mooy Ousmane Sonko arrêté grève de la faim bi nga nekk waaye yéenekaay bi mi ngi laajte est-ce que Sonko bu accepté li ni moom dina Sonko ci na mu ci loolu ndaxte mu ngi na grève de la faim bii yónnee na délégation ci moom en tout cas li tamit moo di est-ce que ñi nga xam ne la Serigne Mountakha yónni dana leen bàyyi ñu jotee ci président Ousmane Sonko pour joxe yóbbante bi yéenekaay bi en lépp nag mu ci responsabilité président Macky Sall leneen ci responsabilité état bii moo di immigration clandestine bi nga xam ne jamono ji saa nu yaakaaree ne jeex na ndekete mu ngi bëgg gën ëppi loxo ndax jamono ji Fass Boy di jooy seeni doom am na beneen gaal goo xamante ni téeméer ak juróom fukk ak juróom benn doomi aadama ñoo ca nekkoon yegg nañu Espagne jamono ji may ni bokkut ak gaal googu tamit fi mu juróom-ñetti fukki ndaw ak juróom-ñett beneen bi def juróom benn fukki ndaw ak juróom-ñett benn bi teere ji na ca Maroc benn bi teere na sa Espagne yéenekaay bi di ñu lu tolloog 1025 actuellement may wax ak yéen ñoo ca dax la ñu leen di waaje indi ci réew mi mbir yi di gën dëggal jamono ji na ndaw yaa ngi dem ca bitim réew jaaree ko nag ci géej gii l'observateur moom di ñu nettali mbir bu doy waa ci ñaari agent GIGN yoo xamante ni dañ leen a jàpp ci ñaari milliards ci ay faux yoo xamante ne ni moom lañ leen di toppee te li ci gën a doy waar nag moo di takk der yi benn haute autorité de l'État rëcëlewaat nañ leen fekkee ba jàpp leen seeni arme ak seeni carte professionnelle mën la jàpp nañ leen laa wax ba jàpp seen benn complice di waa ji nga xamante ni moom mooy laveur de billets bi alal gi ñu leen jàpp nag ci faux billets yi mu ngi toll ci 2 milliards de francs CFA fi mu toll nii nag ñaari agents GIGN yi jàpp nañ leen yóbbu leen ca kaso ba en attendant ñuy ubbi enquête bi gën a leeral coow li <laughs>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 da ngay jaaxle gaawal rek jokkoo ak pharmacie Al Maktoum yow mi tëlee amee faiblesse sexuelle doxal nànk dem ba ci pharmacie Al Maktoum solution bi fii la fekk baax pharmacie Al Maktoum ay produits am disponible na partout au Sénégal ak sax bu dee yéen ñi nekk ci Sénégal jokkoo leen ak maam Cheikh bi di 77 604 07 71 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Italie jokkoo leen ak El Bachir bi di plus 39 338 916 03 90 bu dee yéen ñi nekk ci diwaanu Espagne Espagne ak Barcelone jokkoo leen ak Cheikh Sadibou numéro téléphone am di plus 34 602 11 12 28 yéen ñu nekkee ci Maroc jokkoo leen ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di plus 212 681 289 672 li gën a neex nag ci pharmacie Al Maktoum mooy indi nañ leen ay savon yu bees tàq ngir xeex lépp lu jëm ci wàllum ndoxum siti di defar sa teint ba muy nes nes yi kon nag gaaw leen contacter pharmacie Al ndax ndaxte kat wér gu yaram baax na ci doomi aadama jaaraama pharmacie Al Maktoum